doon yonente bi alayhi salaatu wasalaam nag buñ koy wax ci gàttal li war a njëkk xam ne mooy yonente bi lan lan la fi bàyyi bañ war ko doon ci moom alayhi salaatu salaam xam ngeen ne bi moom la yàlla tànn muy ngën ji mi def yi nit ñëpp bi ndajee yàlla da ca tànn ay famille inna allaha astafa aadama wa nuuxan wa ala ibrahima wa dafa tànn ci biir nit ñi ay famille muy alu yoo xam ne yooyu mu tànnaat ci banu ismail maanaam waa kër ibrahima nga xam ne ci la ko dajay tànnaat waa kër ismaila waa mu tànnaat ca kinaanata kinaanata ci mu tànnaat ci banu quraysh Quraysh Quraysh mu tànnaat ci banu Hashim banu Hashim mu tànnit seen biir yonente bi alayhi salaatu wasalaam loolu yonente bi alayhi salaatu wasalaam moo ko wax nga gis ne kon yàlla dafa tànn tànn tànn ba sepp ne kii moom a gënal ci gaa ñëpp moo tax moom la teg ci kaw ñëpp loolu it boo seetloo Cheikh Ahmadou Bamba ñi nu yàlla taw féexale ca kookee la la la sëtoo muy Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ay maamam dañ koy lim di ko lim ba mu àgg sa Seydina Muhammad loolu murid yi ñoom gis gi gis sëñ bi tax na xoolatuñu lool waaye loolu lu am la mooy solo gi mu solo ci yonte bi maanaam lu yàlla tànn tànn nit jooju moom ci la bàyyi ko moom Cheikh Bamba radiyallahu anhu durriyatan ba'duha min ba'd yonte boobu nag moo mujj ñëw ci yonente yi alayhimu salaam waaye moo ci gën loolu lépp dana ci ñëw ci ci Seydina Muhammad nag ak mën nañ ne day ñaari xaal ngir indi lan la fi bàyyi bañ di ko doon ci moom day ñaari xaaj rasulun la mooy ab yónnante la boo xam ne dañ ko yónni am nañ ko jox ne ko wax ko nit yi waaye nabi yi la mooy koo xam ne dañ koo bind ci façon boo xam ne bokkut ak nit ñi def ci moom ay leer yoo xam ne bokkut ak maanaam nit simple yi leer boo xam ne dafa nekk ci biir ci biiram moo tax moom ci moom yonante bi alayhi salaatu wasalaam danaa wax ni nun yonante yi laa nuuras nahnu maashir al anbiyaai laa nuuras mooy yonante kenn du ko donn te ne yonante bi alayhi salaatu wasalaam bi mu fi jógee kenn donn ko maa taraknaahu sadaqa li fi bàyyi lépp sarax lañ ko wax kon indi woon na coow ginnaaw yonent bi ndax soxna Fatima moom la fi bàyyi ci doom ju jigéen yónnee na Seydina Aboubacar mi xalifa ne ko li yonent bi bàyyi ginnaawam la bëgg ñu séddale ko ko ne ko kat yonent ma wax ne nun maanaam yonent yi leen fi bàyyi sarax loolu cheikh yi dañ ci wax wax ji bari waaye waaye ci gàttal soxna Fatima daal day ànd ci li yonent bi waxoon mbir ma jàmm na ñooy kenn diggatu ci coow kon alal yi boppam ji nga xam ne moom fi bàyyi muy photo yeeg matériel adduna bi kenn du ko doon ci moom waaye lu yonent bi wax na ci beneen bërëb ne al ulama warasatul anbiya mooy borom xam-xam yi ñooy doonnu yonente yi am na beneen riwaay beneen nepp boo xam ni mi ngi sunan abu dawud ki ñoo abu darda ab saxaab yi doon moo ko nepp li wax ne yonente bi dafa waxoon ne nun laa nu warisu dirhaman wala dinaar wa innama nuwarisu ilman wa nuuran yonente bi da caa nettali dafa wax ne ñun yonente yi duñ fi bàyyi ay dërëm ci dinaar ñu koy doon liñ fi bàyyi mooy xam-xam akub leer xam-xam akub leer ñaar yooyu lañuy doon ci moom xam-xam bi moom nga dégg ñu di ko wax ci rajo yi muy fiq beeg tawxid beeg yooyu ñuy jàngale bu fes leer gi mooy li tax ñu topp sëriñ si ci gàttal loolu mooy ndonal yonte bi xam-xam bu zahir bi ak leer gi nga xam ne moo tax ñuy topp seen si ngir mos ma jëkk ci xam-xam boobu xam-xam boobu it xam ngeen ne ginnaaw yonente bi aleyhi salaatu wasalaam jullit ñi ak boroom xam-xam yépp maase nañ ci góorlu ci liñ fi bàyyi woon ci ndonal xam-xam li ñu tënk ko bu dee wàllu tawxiid xam ngeen ne am na ñu judd woon ci lislaam di wax ci yàlla ak mbi ak ak ak wàllu tawxid wàllu ngëm yoo xam ne dëppoowut ak nu yàlla nu yonte bi doon jàngale ngëm waaye ñooñu borom xam-xam dañu taxaw seen kanam di leen tontu te lépp ñu teg ko ci alquran ak sunna si yonte bi alayhi salaatu wasalaam ba mujj dëgg gi leer naa ñi ñooñu boo seetee ci wàllu tawxid ay ngir yu bare bari la mooy ki nga xam ne moo moo jiite na ngir ñoo gaa ñu nga xam ne ñoo nekk ci yoon mooy ki ñu abul xasan al ashari mooy jiite ñi ahlu sunnati wal tawxid def nañ ay téere yu bare bare bare bare yoo xam ne yépp ci tawxid lay wax nga xam ne boo demee ci biir téere ya da ngay fekk ñuy wax ci wàllu suñu borom ci moom ak amam bi ak meloom yi nga xam ne moo war ci moom ak yonente yi lan moo war ci ñoom yowmal qiyaam nan lañ ko war a gëme ya fay am àjjana ak sawara ak ak siraat yi yépp dañ koy leeral loolu ab la boo xam ni daa am boroom xam-xam yu ci wàllu googu di ko leeral boroom xam-xam yooyu nag kon da nga yëg ne ñi ngi yor nañ as lëf ci ndonol yonent bi aleyhi salaatu wa salaam waaye xam nga kenn mënta nekk fépp xam-xam dafa yaatu xam-xam bi yonent bi bàyyi dafa moo tax ñii dañuy féete ci wàllu am ñoo xam ne ci wàllu fiq lañ féete woo di ko gëstu mu dem ba def ay ngir mooy ngirum Maalik ngir imaamu Shafii ngir imaamu Ahmad ibnu Hanbal ngir imaamu Abu Hanifa loolu it ay téere yu bare nga ca ay boroom xam-xam nekk ca boo demee ci téere yooyu dañ lay wax nan la ñuy jàppeek nan la ndox ndox yan ñoo mën a jàpp ak julleek woor ak yooyu yëpp nan lañ koy defee indi détail yëpp ba dara lëntul ci wàllu boobu borom xam-xam yooyu it boo koo ci gis da ngay yëg ne kii am na as lëf ci ndonol yonente bi alayhi salaatu wasalaam am ñoo xam ne tafsir la ñuy féetewoo alquran aay bu ci ne fan ci lan la wàcc lan la aay bi bëgg a wax lan mooy atte yi jàng alxuraan xadis yi ci war ak yooyu yépp lañ yittewoo ba def ko muy xam-xam bu beru xam-xam boobu itam tey ñu ngi koy jàng nga xam ne borom xam-xam yee ne yor nañ def ci ndonal yonente bi alayhi salatu wasalaam xadis yi yonente bi muy wax yonente bi noonu lañ ko tënk fexe nañ ba tënk xadis yépp xool bu ci ne kan moo ko wax ki ko wax kum doon ndax wér na ndax wér ba defar ko ba nga xam ne lool maanaam xam-xam boo xam ne ci biir xam-xam islam yi la loolu am na xam-xam borom xam-xam yu ca féete yoo xam ni dañ leen tudde ulamaul xadis ak muhadisuna ay xufaar ñooñu ku ci ne yor na aslëf ci ndono yonent bi aleyhi salaatu mu am na beneen xam-xam nag boo xam ni mooy leer gi mu wax waxoon na ne xam-xamu zahir bi ak beneen xam-xam muy wàllu leer gi leer gi itam am na ñu ca féete ñoo xam ni ñoom boo ñëwee fi ne li ñu yittewoo mooy sa xol sa xol ban problème la am est-ce que da nga rëy wala bok da nga iñan wala bok da nga bari looy bañ nit ñi te def ñu la dara wala da nga fiir wala yow ndax bëgg yàlla bëgg nga yàlla dëgg-dëgg wala bëggoo ko ndax yaa ngi xalaat ci suñu borom màggal nga yooyu yooyu lañu yittewoo ñoom nga xam ne mbirum xol la mbirum biir la ñoom it boo ñëwee ci ñoom na yénte ba daa def ak saxaaba yi mooy jaayante yow noonu lañu ñuy defee yow mooy nga jaayante ñoom jaayante googu nag mooy wane ne yow ba tey ndax ki nga jaayanteel moom daa am kenn comme jaayanteel koo ko jaayante keneen ba ci yonente bi alayhi salaatu xam ne bi ñu mën yaa ngi teg sa loxo ci kaw ci kaw ci loxo bi yonente bi alayhi salaatu wasalaam boo ñëwee itam la dénk ne la defal nangam moo xam dañ lay liggéeyloo wala ñu lay jàngaloo ay xasida wala du la tuddloo yàlla lu mu ma mën doon day fekk muy loo xam ne dañ ko jëlee ci yonte ba nga xam ne ba léegi gis ngeen ne li nga xam ne lépp diine dañ ko nettalee mu jóge ci yonte ba ñu di ko toxal ba mu agsi leer googu it noonu lañ koy toxalante ba mu agsi ñi doon yonte bi nag alayhi salaam ba tey ay xeet la kon day gis am na ñoo xam ne leer bi rek lañ doon doonuñ ci xam-xamu adduna bi am ñoo xam ne xam-xamu adduna bi lañ doon doonuñ dara ci leer bi am na ñoo xam ne yàlla def na leen tawfeex ñu boole ñaar yépp doon leer gi ak xam-xam bi ñu mooy ñi gën a mat ci ñi donnu yonente bi alayhi alayhi salatu wassalam ci gàttal kon loolu rek mooy ndonal yonente bi mel na ne yaakaar na bu bu bala ma eh, yaakaar na leer na ci li mu wax kon mu dugg nag ci cheikh ahmadou bamba moom sunu sang bi nan la doon ne sayiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam foofu damay am lu ma leer la loo xam ni boo gisee jàngkat yi mooy yi nga xam ne tey xam-xamu zahir bi rek lañ xam ci yonente bi alayhi salaatu di am jafe-jafe ak ñi nga xam ne dañoo yor leer yonente bi gii mooy maanaam gaañ yi liñ yor ñoom dañ du xam fu mu moo tax ma leer gàtt wala ne yonente bi ak maanaam dafa am ay ak leer bu nekk cam goo xam ne maanaam kenn si ko masalan ci gàttal yonente bi daa wax ne kuntu nabiyyan wa aadamu bayna ruuxi wal jasad mooy ba may nekk yonent booba aadama maanaam diggante roox ak yaram te la nekk boobu yàlla bindagu ko maanaam ba muy nekk yonent yàlla bindagu ko li sëñ moom la sëñ wax la anta alladi utita xidman nubuwatan wa aadamu bayna al maayi wa tiini yan jëli mooy yonent bi mu nekk kenn bindagu ko gis ngeen itam dañu gis ci alxuraan suñ suñ borom nett li ne Zakaria sayidna Zakaria ab yonent la woon moo fi jiitu Seydina Isa tuuti yonente yi xam ngeen ne ñaari xaaj lañ maanaam Ibrahim mooy maamu yonente yëpp daanaka ci gàttal dafa amoon ñaari doom ku ñuy moo jur Yaqub Yaqub Yaqub jur mboolem yonente yi nekk ci banu Israila ba Seydina Isa mooy Alu Imran mu amoon jeneen doom ji wax Ismaila moom ci la yonente bi soq ko alayhi salaatu wasalaam Seydina Zakaria nag ab yonente la ci mujj yi moo jiitu Seydina Isa tuuti moom gis nga ci alxuraan dafa wax suñu borom ne ko fa habli min ladunka waliyan waliyan yarisu ni wa yarisu min ali yaquba mooy dafa ñaan suñu borom ne ko man kat mag laa te bëgg naa bëgg naa nga may ma doom joo xam ni damay donn doon naale waa kër yaquba te yaqub ak digganteem ak Zakariya ay junni junni ak ñoo xam ne nga gis ne foofu kon ndono ngi fa loo xam ni du ndonoon matériel bii waaw ndonoon li ñuy wax ndonoon leer la koo xam ne moo nekkoon ci moom te bëggul leer gi dox moom Seydina Zakaria mu ñaan suñu borom mu may ko doom joo xam ni day doon wàlle leer googu nga xam ne moo jigoon ci Yaqub ba ci ba ci moom wax na diggante Yaqub ak ak ak ak ak ñoo kii kon loolu dañuy gis ne am na ndonoon baatin lu am muy ak leer boo xam ni moom moom la yonent yooyu doon donante yonent yooyu itam yonent yooyu itam bi ñu fi jógee dafa am gaa ñoo xam ne yàlla leen di tànn li yàlla wax allahu yastafi min al malaikati rusulan wa min al naas mooy daa am gaa ñoo xam ne yàlla leen di tànn istifa summa awrasna al kitaaba alladina stafayna min ibadina maanaam am ña yoo xam ne yàlla leen di tànn jox leen leer googu ñu yokk ko ñoom it di ci dimbali jàng nekk yërmaane ci biir jàng kon leel boobu ci lislaam la bokk ku jàng alxuraan da gis ni bari nañu koy tegtale ñu di ko donante ba mu agsi yonente bi aleyhi salaatu wasalaam nag ma la ko doon gàttalal rek mooy centralu leer leer boobu masalan mi mel ne courant bii nga gis nii dafa am foo mooy al muwallid maanaam fa la courant bay soqi soqi ko nga xam ne central bu am courant boobu moo la ko jox centrale yi dama xam nga day bari ay yenn centrale am ci biir dëkk bi ak ak yeneen dëkk yi nga xam ne fii courant bi courant bi soxla ko mooy jox yooyu centrale mu ñuy jox koñ yañ féete noonu la leer bi yonente bi alayhi salaatu ne moom mooy jox gaa ñëpp ña ko woon sëñ bi wax na li nuurihi sajadat amlaaku mursilihi maanaam leeru sayidna muhammad ma nga woon ci na aadama ñoom ñëpp moo leen jox moo leen doon jox leer ñi ko mujj muy muy yónnante yi muy gaa yu baax yi itam ñépp ci leeram boobu lañuy tëgg nga xam ne kenn ku ne nag central ba jege jege jële ngay pour am courant courant bi itam mooy maanaam ci xol yi lay tàbbi xol yi itam mi ngi fi ba noonu baraas la nañ lépp li li li la manqué rek mooy xëcc ak fil ca ca kii ba kon loolu ci gàttal mooy mooy leeru yonent bi mooy leeru suñu borom bi nga xam ne noonu la koy séddale am ñoo xam ne nag yàlla dafa def tawféex yi ñu donnu yonente bi ci zahir ak ci baatin doonu xam-xam ba doonu leer bi loolu nag ñu néew néew la ko yàlla defal ci gàttal rek xam ngeen ne sunu yaakaar ji Cheikh Ahmadou Bamba radiyallahu anhu moom mbindeef ëpp wu ko ca leer boogee ndax pas-pasam ak pas-pasam ak ak ko kawe suñu tubaab ci moom dara da ko daa fee sut lépp luñ ko jox mu laajaat la dees loolu moo tax mu am ci loo xam ni nii waa nga gis keneen ko ko am ci gàttal zahir si moom fe feeñ na ñëpp xam nañ ko mooy ni mu doon yonte si zahir mooy gis ngeen xam-xam yi nii ñuy wax da cee géeju woon ba jaaxal ci mboolem ñi jamonoonteel moom Sëriñ Bamba xam-xam boobu bi mu ko amee da ko doon jàngale waat def na ci téere yi ngeen xam fànn xam-xam yëpp def na ci téere ci wàllu fiq ci wàllu tawxid ci wàllu tasawuf yooyu ci ay téere nekk noonu it da ko daal dund maanaam nuru gi mu nuru yónente bi ak doon gi mu ko doon da ko daal dund masalan lenn loolu ne na ko yónente bi alayhi salaatu wasalaam doon defee noonu la ko daa defee ak colam xam ngeen ne col bu weex la daa sol ndax yonente bi daa sol col gu weex mu ëppoon ci solo moom sëñ bi col gu simple la itam yi doon boo xam ne du bari comme nii wolof yi baaxoo def nga xam ne ab deux mille maa ngi jégalu ci sëñ bi yaa da ngay sol ak col deux mille ko fu ne nga nga defal col col gu simple la doon doon moom sëñ bi li mu daa sol nga xam ne du bari ay ay xoy ni mu daa toogee mooy ne yonente bi alayhi salaatu wasalaam daa toogee itam bu daa waxee ni yonente bi daa waxee noonu lay waxee mooy lu mu wax da koy baamu ñetti yoon moom sëñ bi te lim wax lepp dëgg lay doon du waxi caaxaan du waxi dara li cëppit ay waxam buy wax ak mag dañ da koy ubbé ab latte ab doxam ni yonte bi dañ ñi ko misal dañuy wax ni buma sa dox ka annama yan sabbu min min sabab manam buma sa dox mom yonente bi day gaaw kum andal jitu la sëñ bi tam non la doxé ab doxam day gaaw lool fi ni buma sa dem ci jàkk de kenn du ko mëna dab kum andal jiitu la ak loo gaaw gaaw yonent bi alayhi salaam dañuy nettali ne maanaam aw ñaqam maanaam mu gën a neex parfum bi gën a neex mu parfum misk sëñ bi itam foo ko masaa jege parfum bu bu neex mooy mooy mooy ci moom moom dawut julli sax wax nañ ne te jëwul jëlut bitelub sikki tuuroo ko sikki ci parfum yi gën a fort te gën a am xet ci la bokk lu muy defet faw mu tàmbalee ko bismillah ndax yonte bi noonu laa def ndeyjoor di daa jëfandikoo dawut nangu sax kuy kuy kuy defal dara di ko defee ab càmmoñ sëñ Bachir wax na li ma sañ ko yóbbante dara ci moom loo xam ni nee na poos bi daa féete càmmoñ càmmoñ moo tax ma génnee ko sama sama loxo càmmoñ waaye neen dama dama ko xam ci kanam mu waaw càmmoñ bi nag ci la daal di bàyyi càmmoñ bi nee na la sama loxo ndeyjoor génn jox ko bëgg ko dara nga defal ko ko defe ko ab càmmoñ lu mu daa def yéene la ci jiital te it fonk lo maanaam bu ma sa reetaan dawul ree ba kàddu gi feeñ dana muñ rek comme ni nga xam ne yonente bi yadxaku bi tabassumi yonente bi loolu la ñuy wax dawut dawut ree ba kàddu kon gis nga ci soxir si lépp da cee doon yonente bi da ko nuru nuru lu nuru lu ba far di moom di koppi ci moom li may wax koppi ci moom donc da nga xam ne yonente ba nag léppam moom moom sëñ bi ci wax na ne léppam kenn du ko jël waaye da ciy ëppale da ciy ëppale bu ko defee nag doon na baatin gi ay façon yu bari la lay feeñ ci nit ki mooy yonente bi suñu borom daa wax da ko dafa wax ne qul inna salaati wa nusuki wa mahyaaya wa mamatiya lillahi maanaam lépp yonente bi maanaam eh, léppam yàllaa tax maanaam buy wax wax de day wax ngir yàlla buy jëf-jëf de yàllaay tax ku muy àndal wala lu muy def lépp yàllaay tax loolu gaa ñu baax ni dañ koy doon ci ci loolu bu ñu wax xam nga leer bu ñu waxee leer leer fi jafe-jafe bi ne mooy ñu bari dañu jàpp ne mooy leer gi ñuy wax nii ci ci ci kii fekk leer googu bokkut ak leer gii nii ay façon yu bari la yoo xam ni maanaam ndax fi ne fi ne xam leer la nit ki nga umpale dara tey nga xam ko tey ak leer loolu loolu ak leer lañ ko jàpp moo tax ak leer gi ay façon yu bari bari la bokk nañ ci sa lépp di di di di di lu jëm ci suñu borom tabaaraka taala di loo xam ne yàlla rek kay tax li sëñ bi mu joon wax ne kulli saara lillahi loolu sëñ wax na ko mooy sama lépp mujj na yàlla daa yàlla nga xam ne yàlla tax loolu nit ki bu fi àggee yàlla koy tàggatal mbooleem li yàlla bind lépp gis nga yonente bi alayhi salaatu wasalaam biñ ko bi mu bi mu biñ ko xarloo weer wi daa taxaw ñaan rek weer wi xar ak yu bare bare till yi ak muy wax yu kenn xamul mbëtt yeeg yépp di wax ak moom mu xam seenu làkk loolu lépp mu ngi ci histoire yonente bi alayhi salaatu salaam nit kii itam bu doon na yén yonente bi ba nga xam ne àgg na ci léppam di suñu borom tabaaraka wa taala nga xam ne léppam yàllaay tax léppam mbirum suñu borom la yàlla da koy may mu tàggatal ko mboolem lépp ba lu mu ci bëgg rek ak lu ci ñaan yàlla defal ko suñu borom xam nga moo wax ne gaañe ragal yàlla rek waxuma la gaañam ñële nga xam ne moom ci état mooy ñi ragal yàlla rek suñu borom da wax ne lahum ma yashaa'una inda rabbihim mooy luñ bëgg ma defal leen ma yashaa'una mooy lu neex ma jox leen ko loolu fala fala ay fala fala mooy neex rek yàlla defal leen ko loolu dafa suñu da wax ne mooy payu ñiy dund ihsaan ihsaan mooy tasawuf ci xam-xam boobu lañuy la la ñuy jëlee doon nu yonente bi ci leer gi may